am sommes ñëw fii tey ci ministère éducation nationale donc fekk si suñu collègue ministre de l'éducation nationale pour euh, cérémonie remise symbolique donc juróomi junni kaye yo xam dafa ay sensibiliser les yi ci ni ñuy jëfandikoo internet bi te loolu dafa journée bi ñuy wax journée euh, chef sécurité ci internet bu célébrer tay muy bo xamni dañ koy célébrer depuis 2008 té téeméeri téeméeri dëkk ak fuk diko célébrer donc tay ñu ñëw ak euh, suñu partenaire OIDC remettre kay au ministre de l'éducation nationale pour que mu partagions avec euh, partager ko ak euh, élèves yëpp ci Sénégal mais également mu nekk début partenariat entre ministère de l'éducation nationale ak ministère économie numérique parce que tay gis nañu internet bi ñi ci ëpp wala ñi ci ëpp utiliser xalé yi mais il faut que mu ànd ak benn sensibilisation ak ben mën naa ni pour ñu xam luñu def ci internet bi mën naa siiw na ba faaw wala dootu kenn dootu ko mën effacer té loolu defé naa ni dafa am solo pour xalé ñu sensibiliser leen ci déjà benen bi moy utilisation bi warul nek lo xam dafa ëpp ndax luñ liñuy wax rek excès bu bu lu bëri wala lu ëpp da fay mëna indi indi lu mu tudd ay yaq yaq yaq ba tax na kon sensibiliser xalé yi ñu avons internet bi baxna surfer baxna mais pour lo xamni ni day lay indi yokuté wala day lay indi day jappal ci sa njàng ci say recherche lolou tay ñu wara gëna gën concentré wu donc naturellement ci njàng bi té lolou dafa dugg ci cadre comme ni ñuy wax stratégie Sénégal numérique SN 2025 mais également donc ben stratégie bu gouvernement bi tëgg mu ñukay wax stratégie nationale de cybercriminalité nga xamni dañuy xol nu ñuy def ba internet bi nekul woor mais également niñ ko utiliser nekul woor ak lu am njeexital ci santé population mais aussi ci sen yokuté